Tu am un problème voir recevoir suis fi ku mais c'est rek la que ne mais je sama fit Je ne parce que ki me recevoir aujourd'hui, c'est Talibé donc suñu et il s'appelle Malcolm. dara monsieur le commissaire. Est-ce que vous, en tant que commissaire, je dois vous rappeler que Keba Moïkan, il, vient d'assassiner une des personnalités les plus influentes de ce pays, les plus honorables de ce pays Franchement, on n'est une fierté quand je te vois jouer. une fierté pour moi je suis un jeune acteur mais en même temps je suis un jeune scénariste un jeune DA qui est maison de prod on a la chance d'avoir un acteur comme toi un acteur dévoué comme toi dañuy commencer juste ben affaire ben séquence bu mu bëgg ngeen seetaan ko rapidement après ñu ñëw waxtaan. yaa ngi fàttali ko ba nga ñëw fii nekk ben jeune bu yambar faible di stressé cas bu njëkk bu ñu jox mu nekk cas wu viol mënoo ci dara nga jàll sa ndox ba. Mouri man maa la formé li nekk si yow tey man maa ko ci def dëgg te amoon benn xalaat lu jël sa place. hey mosuma bëgg a jël sa place. Kéba yaa bon. xoolal kii ñaan moo nekk sa kanam mu ngi nii di feeñ maa ngi koy gis mu ngi saxaar mu ngi nii nga foog ni ñëpp ne yow lañ mel nax nga sa bopp lu waral nga mel nii waaye yàggoon naa ko gis ci yow lenn moo la musoon soxal muy ay billet de banque maratatu boos yi lenn moo la soxal muy am nombol baat lenn moo la soxal muy nga nekk ci kaw yàq nga lépp Kéba yàq nga lépp takk der yi mel ni yéen. policiers yu mel ni yéen yéen a yàq dëkk bi amatoo leen benn gëdd ci dëkk bi leen ngeen bëgg mooy kenn ku leen jox seen alal leen ngeen bëgg ku ngeen gaar lekk ci moom dara ana seen dignité ana sa honneur amatuñ ci benn gëdd. fat fekk fuñ mori. xoolal xoolal xoolal xoolal uyu ma bu ma yëngal bu ma yëngal fu ma la yëngal mais dangay wàcc wallaay tey di nga wax danaa la gësam xool ki ñaanal doon rey. Kéba xar weesu lembote dinaa la mbëkk dinaa la jaxase wallaay dinaa la jaxase. ba yak nga so dundu xara dag ma faté ma raw virus dina dugg ci sa yaram dina la jaxassé nga ne bëggoo wax ah. kebaa ba ne sa kàddu dang ko denk mu sa téléphone dina ci génn ay kàddu yu rot bal la daaj la bu bu deeku dina ci am li ma bëgg. muy commissaire lay xaar. xam nga ni bu nekkul woon mën a kii nii metti ci yow lay jugee. dana metti ci sa côté mba sen côté paré guma ak yow paré guma ak yéen bi on a fait de la chaleur gis nañ gis nañ motivation bi ci andal gis nañ dévouement bi engagement bi gis nañ jeu bi en fait c'est quoi c'est quoi séquence bi comment tu l'as réussi euh, merci beaucoup mais euh, réussite bi c'était évident parce que booy jouer dara lo xamné ne da nga ko sentir du euh, pourquoi Kéba je me je me sentais très bien à l'aise parce que Kéba me turu maam la te Wilane le donc pour que mon on avait écrit Ouzan, mais je me sentais très bien à l'aise ci ci Kéba on parlait de ben ben jeune comme ben euh, porte bu ñëw ci entreprise mais vite fait mu échelonné forcément dina am ben ben opposition bu nek ci souf bien vrai que ñom ñoo la dalal mais ñoo xamante ci si bon dinañ la xol un peu ak l'œil gauche pour se dire que ni waa il doit pas mu war nek ci kaw donc gëtëm nañ ko wax nañ ko ni xolu kiñaan la mais c'était naturel et je voulais tellement euh, joxe lépp parce que moo nekkoon euh, euh, cëppaandaw gi ñu joxe le maximum heureusement sénégalais dañ ko bëgg Sénégalais yi dañ ko bëgg et puis moi je dis hein, c'est un exemple taille pour pour pour nous les jeunes acteurs ñu ñi nga xamante actuellement ñoo nekk ci ligue ci série bi. Hmm. ku xool lii dina gis ne nekkul lu improviser peut-être ci texte bi mën improviser dara mais nekkul loo xamante ne c'est sorti de nulle part on sent qu'il y a de la formation waaw wala déet. waaw amne amne toute formation et ça j'en profite pour euh, remercier ñi nga xam def nañ formation bi et je devrais commencer par ça muy euh, nuyu les internautes les fans et les amoureux de Marodi TV surtout en commençant par le DG ba fin de liste et di wax salaamaaleykum wa rahmatullah ñun ay sénégalais lañ ay julit lañ ñu ngi nuyu umma islamique bi yëpp chrétien yi ku mun ci doon euh, di jiital ci nuyu bi sama ma ci yàlla Mawlaaya Baye Demba Si xadrakash falal Euh, di wax ni formation c'était à Mbour man mbuur laa juddoo fa laa màggee fa laa yaroo alors euh, dañu amoon benn professeur monsieur Camara daf ñu monsieur Camara daf ñu doon wax da leen def ay salaam à mm. l'époque xamoon lu slam mais dama bëggoon rap et bu ma daan dem di defi ji ay rap mu ne mu bàyyi rap nga def salaam bi ma commencé salaam mu ne ma defal poésie Je commencé def poésie ma da nga ci euh, théâtre j'ai commencé par ça après muy dem ba ci kaw euh, peut-être que moo ma topp te bi ma je ram à ma un film je koy reproduire <laughs> automatiquement C'est <laughs> un film et c'était extraordinaire donc c'est la formation mm-hmm. ak que euh, bi gën a à ci muy àddina mom mm-hmm. parce que Serigne Touba rek ko doon wax pour que nga mëna jang da ngay dem ci dara bo xamné chaque jour da ngay nafar nafar bi lan la mo nek chaque jour rek ak euh, dars yi nga xamné yang yaa ngi koy am donc mm-hmm. je je je je créé wu ma lenn nekk foo nekkuma fa woon santé ne man acteur là qui est venu comme un citoyen lambda qui a quitté chez lui seul mu sangu lekk comme ñëpp mm-hmm. naan kaasu café mu ñëw et et vomir ce que j'avais mangé depuis ça fait euh, Mathusalem donc c'est juste ça la formation. donc wax nga ko ah muy l'école de la rue l'école de la rue nga jaar en même temps tamit li ngay interpréter ñu senti ne carrément peut-être looy dund lo wala lo xamante ne gis nga nit ko ko dund quoi nga jouer ko mu dugg ci xolu nit ñi mais aussi j'ai envie de revenir un peu ci ce parcours côté cinéma ñoo guma nag ci one man show yi nga def yëpp parce que gis naa quoi booy da nga graw mais j'ai envie de voir tay si côté cinéma ak les séries ce parcours fan nga jaar. jaar jaar bi waaw. Euh, monde cinéma bi ma ci ñëw fi ma jóge c'était ben ben wéylu bu opposé parce que dama don basket U18 équipe nationale 2012 ma dem bi ma démé euh, niveau régional départemental plutôt ñu mhm. éliminé ma quoi euh, puisque temps waxal mo bëggu relever ay défis mhm. sama papa nekkoon militaire ma ko dina dem armée dina sol comme ce tenue et je mhm. vais être un digne euh, homme de tenue mu ne ma tu peux pas mu daal di dem mission Mali Madame Bango. amoon opportunité dem ay Enowa wala ensoa je me suis dit je vais aller là où il fait excessivement chaud pour mm. tester euh, ma capacité. Madame Bango réussir affaire yi nek fa formation euh, nek spécialiste tir armes lourde M60. Pareil.. on était 1500 par contingent on devrait prendre que 5 personnes. pour nous dem euh, militaire. Et heureusement, parmi ces 1500, je faisais partie des 5 personnes pour des prytanée militaire du Sénégal. non après nous, dem foofu <laughs> ñu ñëwaat marine nationale marine nationale j'étais le major de la formation de la marine nationale. ma je me suis dit qu'est-ce que je veux faire parce que l'autre défi qu'est-ce que je veux faire et je me suis dit je vais me lancer ci ay affaire euh, image parce que j'aimais ça par exemple man su de de damay son parce que ne ma koy dégloo c'est très profond On ma commencé temps yooyu DTV amagul excusez-moi ci publicité bi RDV musique sport Madame woon ma dem ak ñoom Mansour commencé def naa ko muy metti may jóge Mbour di ñëw ba Dakar demaat ñibbi encore c'était difficile mais c'était l'amour c'est ça que je voulais mhm bi petit à petit cinéma bi commencé à des choses. je me suis dit je vais essayer et le premier film c'était ben film bu waroon dem euh, festival New York. ok euh, maam Diarra réalisé ko tout tuddoon Laara la Laaraan man mo bokkoon parmi les cinq acteurs principaux yi. ñu réussir ko alhamdulilah. bi ñu paree nag ci li ci yenen top comme par exemple Union européenne ñëw ak film bu tudd tekki fi bi ñewé ma nek acteur principal bi nek Cheikh. Euh, bi ñu paree Sakho Mangane ñëw euh, casting presque bu dem rek alhamdulilah yalla da ci def xéewal bi démé fofu non je me suis dit attends mais j'aime bien faire ça ay Sakho Mangane tout mais production locale bu saf sap j'aimerais bien. et li yalla di def je peux dire le Nollywood de l'Afrique euh, wala wala le nord de l'Afrique de l'Ouest si lañ suis woowee mu nekk Marodi bi un réel plaisir man RTS là légué comme rubricard mais quand j'ai discuté avec le directeur je me suis dit attends mais fii il va falloir que nous gagnions lu bi ñëwé buntu yaatu euh, mais lolu fi lillahi alhamd loolu yàlla dogal parce que euh, ñun defuñ cinéma rek pour def cinéma pour nit ñu xam ñu su doon lolu peut-être que tay pot il va se la péter un peu mais mom en dehors de ça amna na lay bu bu ki je me suis dit man xalé la bu nekk ci digg pepp ngéer mais pépp bi pour bañ dara keuf ma kan moy doon suma kan moy doon suma euh, lu lu may lu may lu may pour ma dëgër buñ ma joxaan texte nit ñi mosuñ ko xam mosuma li texte cinq fois je l'ai juste trois fois li ci dess damay jël sama salaatul faatiha dóor baye ko yalla ne ko bu yow la mhm. bu ñaawé yow la mhm. parce que lima je pense que ñepp lay defal lu extraordinaire et après maîtresse nous mu nekk lu rafet équipe technique bi job ci réalisation bi mhm. et alhamdulilah mu dem tay ba ci euh, donc je pense que lolu mo nekk parcours euh, homme de tenue à acteur et à stand aussi up journaliste du Sénégal dajalo euh, vous êtes le seul stand up au Sénégal effectivement Yakarna, ni si sa biir wax dama si jëlee ñaar ñaari mbir yu am importance c'est-à-dire mooy li nga wax déjà madame défi bi. Mhm. li nga wax sa pap mhm. défi bi relevé nga ko dama koy indi <laughs> mu ngi nii dem na Bango nga jógee Bango nga dem ba un moment aussi la deuxième chose la plus importante li mot dégg si sa wax maanaam li nga bëgg def. Mhm. ce que tu as envie de faire c'est-à-dire loo top, sa amour sa passion et ça c'est le cinéma et le cinéma tey moo la indi ba ci Golden. Mm-hmm. la série bi nga xamante ne la série qui a révolutionné par exemple l'histoire de la série TV au Sénégal non mais mm-hmm. Golden a apporté quelque chose quoi. voilà donc du coup Tay, dañuy ñëwaat un petit rôle chez Golden parce que nga fiy un rôle inspecteur donc ce n'est pas un hasard j'ai envie de savoir Tay, Mouri je pense que Tay, nit ñi comprendre un peu jaar Bango donc je pense que c'est ceci qui justifie cela quoi mais Tay, j'ai envie de revenir un petit rôle bi parce que tu c'est un rôle Mouri franchement tu es Golden voilà un super flic. Mhm. un super flic boule loyal mais à un moment tamit di nga que tu ne mhm. franchement jour y a beaucoup de gens qui ont pleuré. Mhm. mais aussi tamit jour rendre non mais franchement jour rendre li donc j'ai envie de me ñëwaat un peu ci pour que que sénégalais comprennent un peu parce que rôle bu ci nekk am benn effectivement effectivement. waaye euh, Maintenant, woon métti na. Mm-hmm. facilement difficile. Mm-hmm. pourquoi c'était facilement difficile parce que euh, défi il le fallait. Mm-hmm. les américains ont fait lu extraordinaire pour seen Ils dañuy amoon sax def drapeau États-Unis pour pour concurrence allez vous vous restez en second nous on est là. donc je me suis dit je ci série wu là c'est Marodi. ci c'est comme si euh, euh, euh, on mm-hmm. je me suis dit je vais me donner à fond. Mm-hmm. pourquoi le super flic je suis ma affaire de Nelson Mandela dama <laughs> automatiquement. Mm-hmm. entreprise parce que je disais au directeur c'est pas ça après ñu da xama dem naa armée ñu mhm. tej ma huit jours man prison yi gaay di ñam ñam na bu ko gëna tar parce que ñam na prison armée pourquoi ma ñam prison armée pendant huit jours parce que je vais pas revenir de de mhm. dessus amna heure bo xamne ne bu ñu couleur bi yenn ordre yu mënatul daw et malheureusement dama dama dama affronter Ben bon je vais pas dire grade le grade la won mais amna lu mënti xew ñu tej ma nit ki do ragal loolu jamono bu ñëwé da ngay xol li nga ne nga ko a apporter nga naan mais c'est la triste réalité bil bil sabri taala nga ko war nga bañ deux soit si tu veux être une star qui est là légende du salam disent ou bien ben borom dëgër lay nit ku am ngemb nit ko si ça vaut de l'or et ça pèse excessivement lourd cadre pourquoi euh, euh, koy rendre et tout Bayou nit du gaaw bàyyi. da ngay jékki-jékki golden jeex na nga ne naa dem léegi-léegi sama image bañ fay déedéet. ay mm-hmm. dem nga liggéeyaat nga préparé waat beneen saison ñëw nga gën a beesaat nga gën a beesalaat mais boo ñëwee looy indi parce que jàngoon nga ci daara bi gën a mag léegi xadara boobu noonu boo fa demee lan nga fa jàng da nga jàng ne carrément policiers yi kat wàññi nañ waaye nit ñi léegi ñoo ko tey

nga quoi mais ki nga mm-hmm. bëgg quand même l'amour c'est très fort quoi mais suis par exemple je suis comme policier Marichou je ne ma jàppal Marichou du ko je suis sincère je ko mais xam lu ma parce que dëgg la. mais mais mais mais blague à part hein, bu doon dëggantaan su soxna nekk ci ci ci ci ko def comme ni ko police di defee. Mm-hmm. ko suivre mais média bi je mm-hmm. nangam.

nit ñi respecté loolu c'est comme si nga yor doom yaroo ko yeddoo ko tegoo ko ci yoon bëgg donc muy def ay chichi chocho làkk tubaab dem ba 18 ans continuer bàyyi ko ba mu ñam 35 ans boobu mu xam ne affaire bi c'est pas éternel donc du coup ñun il faut que ñu commencer ñeme dëgg ñeme dëgg bi mooy tey euh, salaire bi nga xam ne tey euh, Marodi mu ngi ma koy jox ma jàpp ci gëm ko bañ leen def yëfu star saa ñu ma woowee ci liggéey ma ñëw def ko waaye gannaaw loolu bu jeexee ma garder coloré bi loolu dalay may même boo jouer euh, dafay am lu dafay am lu des mm-hmm. j'en parlais avec un ami ma ne ko sëñ Mountakha xaw mais boko xolé da ngay mm-hmm. man pas ma mais c'est normal lu tax ko xol bi a que bi waaw xol bi mom moy nek di avant Je bi donc du coup mom il peut être physiquement nga xolé ko mais mais mais mais mais euh, euh, boo ko ci suis dafa Je dafa rafet parce que dund deug mm-hmm. et puis ñu koy def ñëpp rafet ci ñom mm-hmm. nan la di affaire bu ndaw ben pot et Marichou après léegi mu commencé jaillir donc ben xoxu manga bi tay mom mo jëmbat garab manga bi donc tout ce qu'on fait dans Golden euh, euh, lepp lu ñu wane le super flic je vous jure que c'est rien d'extraordinaire et ñun nek ñun ñor baguette magique bi yalla mom bax bax baxam yonent bi yaatu yaatoom Cheikh Tidiane am deuguer fitam bay ña si ñëw indi affaire bu extraordinaire jël ben nit ku bonne ku yes ku tudd Malcolm mu ne dina la yëkëti mais suma la yëkëti n'a xol ndax da nga ci yëk sa bop eh. te bop ba légui ñu ngi jëma reculer di jëma a bañ rek ak satisfaction personnelle je pense que nous ñi un Golden dinañ ci xaw gis seen bopp tuuti. ne au moins tay police yé gaay yi. dinañ corruption avec yooyu. franchement tu es modeste hein mais aussi dama koy seede parce que franchement Malcolm bokku na ci acte yi gëna correct Bir Marodi à chaque fois que ñu soxla ko liggéey day ñëw et tamit day def liggéeyam de manière professionnelle lolu dama koy seede mais aussi suñu paré ci ci ci rôle bi j'ai envie ñu ñëw un peu ci le succès Golden. Hmm. le succès Golden tay jii une maison de production bu melni Marodi d'aller lancer Golden. Mhm. mu nekkoon benn défi peut-être ici au sein de Mawodi. Mhm. mais aussi sur le plan africain sax laay wax. Mhm. c'est une production de qualité on l'assume on le dit. bien c'est un succès on le dit. donc tey yow nan nga succès boobu noonu nga bokk ci acteurs phares yi. man bettu qu'on dise la vérité bi ma ko liiree ma joxee je me suis dit enfin du ma tudd du ma série je me suis dit am nañ benn série bu mel noonu en miniature. Sénégal dinañ xam ñun fan lañu et je vous dis quelque chose euh, bu fekkoon ne amul qualité. il y a des moments où dañ ci tollu da ngay bëgg a baisser les bras parce que c'était difficile. nit ki joxé plus que ça. nga dem ben 10 épisodes nit ki bête la benen benen profil ñëw dugg. Euh, nga fokk ne mom moo a fait. mais c'était comme euh, Casa del Papel chaque instant on arrivait à nous bluffer. Mhm. quand je jouais, je, me disais tout le temps, les Américains vont savoir. J'adore les défis. Et je lance les défis Africain qui lance les défis en Africain. Non. je jouais et je lançais les défis aux Américains. Je me dis, en Kevin Hart, il voit ça, il va se rendre compte que le réalisateur n'a pas fermé les yeux pendant 48 heures. Mhm. Le producteur téléphone tout le temps de le mhm. Le réalisateur, il était là. Le preneur de son, on l'a fatigué. liggéey boobu noonu symbiose boobu noonu yàlla moo ne àq bu nekk naa ko fay moo tax Cheikh Fall doon wax maa ngi bàyyi yàlla ba muy fay eh, yéene rek di fa bàyyi jëf <laughs> loolu xam nga du ko mais c'est une de te dire que man bettuma mm-hmm. liggéey bi dafa metti woon mm-hmm. scénario yi jaar yoon des fois da ngay ñëw phrase bi ñu jox la ko sax ñun ñun des fois daf ñu doon arrivé ñu boudé réal bi parce que nous mo gëna saf eh, quoi après yow da sax euh, ci ci ci cinéma tout le temps euh, dernier bobu ça revient toujours au réal nous plané parce qu'on était tellement euh, à fond et et lan après sénégalais bëggal sen da sur internet les que ça soit Chine tout dans le monde nous avons di commenter euh, doublage actuellement c'est ça que je vois. sur YouTube doublage doublage doublage. pour que doublage c'est parce que les gens parvenaient à comprendre l'émotion c'était extraordinaire. man personnellement parce que tu gis déjà ci maîtresse tu nga nga tu es maîtresse dem ci golden Tu gis foofu beneen visage mais tay c'est vrai am nga succès bu mag ah ci ci maîtresse parce que nit ñi xam na parce que franchement maîtresse nek na série bo xamante c'était très suivi mais nga ñëw ci Golden nga interprété ko franchement trop bien donc tay ngay génn ci mbedd bi ni yan retour ngay am quoi personnellement. Euh, retour yi ma ci am surtout samay côté xarit euh, dañ ne ma ça reste moyen. Mm. peut-être que dañoo tam nek ak man mais li ma ci ëpp li may dégg mooy c'est extraordinaire c'est extraordinaire nice na mais xam naa ne man des na pourquoi des na parce que à la base moi je suis un comédien je suis un humoriste je fais du yàgg naa def scène c'est que les gars yi bu ñëwee deuxième saison dañuy cravacher lu gën a kawe et loolu liggéeyu kan la liggéeyu liggéeyu Marodi la moom moo commencé petit à petit après dafa def propre niyam donc Golden c'est c'est juste une partie wu iceberg bi bu ñu wëlbatikoo vous xam ne li ci suuf moo sax même vous côté bi tam gars yi ko rek je passe sur YouTube inspecteur Mori inspecteur Mori mais bon inspecteur Mori il est là mais le gars qui a écrit inspecteur Mori c'est autre chose après je ma may li joué maîtresse l'âge de ben gars pas encore cours jupon mais bu yërëmtalu rek ndaysan ah, après ñoo fi nekk ko xamné dafa am ki bu ferme sa xoy mang j'étais ben boy bo boo xam day tak ay bling bling mm-hmm. sa yu ma ñëwee bëgg naa man bëgguma ñëw ñu naan ma mom de ñangal rek la ma non mm-hmm. non non non un vrai artiste moy ko xamante si tay je je dois te parler deux secondes mm-hmm. euh, euh, li ñu woowee pédagogie mooy dugg sa sixième sens bi comprendre duggu ce neurone wax ak yow sans pour autant nga piper un mot je pense que ça c'est l'essentiel et alhamdulillah Marodi est là et après gars une guise euh, de fur et à mesure. exactement je pense que là, là hein. comme ni ko wax nii gis de fur et à mesure défi c'est c'est long am faire affaire yu bëri préparer avec lui parce que xoolal c'est un humoriste c'est un comédien da ngeen koy gis sur scène. mën na leen bluffé ngeen reetaan fii ba suba ay ñoom abaa yooyu yëpp marché la hein. <laughs> mais <laughs> mais mais mais franchement juste tey je demande juste un mot. Mhm. boo xamante ne tey moom ngay moom ngay lancé du ma ne dernier mot parce que mi ngi noonu ba yooyu moom baaxul mais <laughs> un mot boo xamante ne mën nga ko lancé au Sénégalais lan lay doon. Euh, merci jërë ngeen jëf jokkonjal jaaraama je dis à tout le monde monde bi Afrique fu mu mënti doon ñu ngi leen di jaajëfal di leen wax ni Marodi deful lii juste pour propre succès am da ko def pour ñu tirer ci ay leçons def nañ ba pare lan lañ ci jàngaat. man de ma part personnelle ce qui me concerne euh, di wax ci sama noyyi bi njëkk ba sama noyyi bu mujj di wax jërëjëf Baye Niass bu amut app moom xamal suma bopp musuma woon xam ne cinéma am na baatin dama ko yaakaaroon zaay rek que jouer mais alhamdulilahi rabbil alamin ala kulli haal bi ma bàyyi nga xamalee lan mooy xadara boobu noonu juróom pays yàlla yi mu tàllalal ma ko ba ci benn pays yàlla bi ci laa ci xàmmee daal di gis nag ndekete lii mooy cinéma lii mooy théâtre ndekete bii quatrième art rek la mën a tudd mm-hmm. ba septième art bi bi nga xam ne su ma demee bi ma demee ba adat 4 ma adat 7 ma comprendre ma xam ne ndekete dara amu fi lu yàlla kon ku ci nekk liggéey boo nekk mm-hmm. wasulu ci àq gars yi dinañ la clap hand te boobaa di nga am standing ovation franchement Mory lii ci la nga ko liggéey wane nga man dama la koy delloo lépp sur sa loyauté am sa liggéey da nga koy reprendre nu donc voilà continue comme ça je suis de tout cœur avec toi. xam nga yow. ah gars ngi def sa interview boobu ba léegi sénégalais waxuñu ko yow. ah. pour devant tout le monde. waaw Marichou moo la gën a loola Eva. si nag loolu nag moom j'hésite nag dëggantaan. tu hésites au nom de la loi sénégalais sénégalaise. je l'arrête pas pas juste pas excès d'hésitation devant euh, tout le monde devant inspecteur Mori parce Mori. que nangu wax première dame et deuxième dame kan mo la gënal. Mori Mori du caaxaan non non non jugu jugu. Mori saison bi dafa commencé sama yoon ko ci japp na porte parce que mënul choisir entre première et deuxième dame bu ayee bul wax jàll. gars saison 4 dafa commencé sama yoon ko ci saison 4. on...